NCA Assurance Gambrendi et la Beauty Malaysia Yumu Home Choice Sénégal ak marque bi di Total Tools ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi ñu ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf mbéj mu rëy mi député Massata Samb mbéj démb député Amy Ndiaye ñibbi mooy réer ci yéen kaay ñu xëy ndool l'observateur nañu nday ñaawteef di barbarie à l'état pur la gis démb ca pincum ndawi réew mi di assemblée nationale ministre de la justice Ismaïla Madior Fall moo fa demoon ngir ñu ko doon woteel bitsem député Massata Samb bu pur la jox kàddu gi mu taxaw ci parloir bi di wax ba muy wax nag da doon ñaawloo ko ŋàññi wax ji fi député Amy ba nopp yi riir ami song ko jël ab siis sànni ko raag ba jolli Mamadou Niang dib député bu bokk moom it ci waa wàll si ci xeex bi ñëw fekk Ami Njaay fi mu taxaw mu wéq ko ci biir doole ji mu ko wéqee lob sa nee nañu moo tax ba moom mi wéqe sax dafa far mujj daanu aha ca la jàmmu jeex musóor yeeg mbaxana yi naaw kurpañ yi tàkk saaganteye mel na tulleeg male ci assemblée ba député Ami Njaay ñibi yéenekaay bi nee nañu pompe yaa ko fa mujj jëlee ndax bi ko déput Mamadou Niang wéqee ci biir dafa xam te nee nañu jigéen ju wérul la maanaam dafa ëmb lëkkati nee li ñu gis démb ci assemblée nationale fa Massata Samb di ñaari député yu bokk ci Yewwi Askan Wi ñoo sàmbaar ci kaw Ami Njaay ñibbi ndaw sa xëm ba dañ ko mujj évacuer l'hôpital journal Les ko bind ne Ami Njaay ñibbi di jigéen ju wan lor moom la ñu fitnal démb ci Assemblée nationale Massata Samb moo ko dóor am talaata Mamadou Niang ñëw këdd ko sursoi ne ko moo taxit Ami ma nga urgence fa la mujjee xibaar la bu yéenekaay bi jële ci Adji Mbergane Kanouté Adji nee na kii di député Ami Njaay ba ñu koy fitnal démb ci Assemblée nationale da koo fekkoon ëmb li ñu ñaan rek moo di doom ji mu ëmboon dara bañ ko jot Adji Mbergane Kanouté ci ne li ñu bëgg leen rek la moo di yoon def ab liggéeyam ba mu mat sëkk ci li xewoon démb ci assemblée nationale bëgg nañu it président assemblée nationale di Amadou Mame Diop appliqué li règlement intérieur assemblée nationale wax ci ay député yu ñu jàpp flagrant délit député Massata Samb Alioune bu Africa Jom Center nee amatul place ci assemblée nationale te li mu def fore ko bàyyi mu jàllee noone ndax rafetul ci derub assemblée nationale rafetul ci turub député ci xët mu njëkk source wa fa la di ñaari député yi doon wulli Amy Ndiaye ñii bi démb ci assemblée nationale ñoom ñaar nañu ci xët mu njëkk ñaari député yu bokk ci coalition Yewwi Askan Wi ñoo doon boxe Amy Ndiaye Massata Samb moo ko mbecc Mamadou Niang ñëw këdd ko enquête dina kay nañu ay député gladiateur la am léegi le téema ñu ne ko moo taxit jël nañu assemblée nationale bi soppi ko def ko arène des gladiateurs gàccee la ko journal Le Mandat bindee ci xët mu njëkk mu di li xewoon démb ci assemblée nationale bés bi le jour gis ne ci assemblée nationale fa doon séntu ci ñoom ngir ñu andi assemblée nationale ana la mujj ñi amoon yaakaar ci ne quatorzième législature bi danañu soppi la woon ci assemblée nationale yéenekaay bi nee nañu ñooñee nañu tari sóoratul muñ wanaa ko toog te xam ne bu dee ak député quatorzième législature bi rek rupture amagul ci assemblée direct ci news nañu gis nañu fi bu yàggul ab député bu ngar daajjoo urne gañ doon wote ci assemblée nationale jël ko yóbbu mu assemblée la ñu xutti démb Walf Quotidien mel ne ku naan ko la xew démb ci assemblée nationale romb na loolu république bi la mbecc la xew démb ci assemblée nationale xanaa du jafee réglé ci yoon ndax lépp Sud Quotidien nee na fa la fekk ministre de la justice Ismaïla Madior Fall lépp ci kanamam la xewee moom ministre bi journal Sud nee nañu bi ko Aminata Touré ak Guy Marius Sagna sëkkatalee ci waxi troisième mandat bu Macky Sall bi ngir bëggoon mu